واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي rawatina suñu mbokki talibé yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax زياره baax di leen ziara di jiital ci nuyoo bi مولانا الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورعاه di ci teg kilifa gi nga xamante ni moom mooy kilifa daaira muqaddamatul xidma di sëriñ Afiya Buso ak mbooleem waa daaira muqaddamatul xidma yépp di am mbégte lool dikk ak yéen ci jataay yi nga xamante ni moom la daaira muqaddamatul xidma di amal ci weeru koor gi yenn saa yi mu nekk ay bind yenn saa yi mu nekk ay jataay yoo xamante ni dañuy tànn yenn ci thèmes yi nga xamante ni yu yitteel jullit ñi la ñu waxtaane ko tey jii nag ñu toll ci tom bi nga xamante ni dafa yitteel képp ku dib jullit ndax thème bi ñuy waxtaane thème bu am a am solo la ndax jullit bi lépp loo xamante ni dafay tax ak njuliteem gën a yokk day tax ak bëggam yonent bi sallallahu alayhi wa gën a yokk loolu mat nay waxtaane saa su nekk loolu nag duñ ci sori ñu fas yéene ci ànd ak kii nga xamante ni moom moo féete ci wetu càmmooñ muy Serigne Cheikhouna Bousso Cumbuleen di ko ñépp xam waaye rawatina ci pàkk bii ci jumaay Tuubaa ji waaye fii ci dëkk bii di Tuubaa mu doon koo xamante nii daanaka suñ ko présenté wul woon mbokki gëstukat yi ak ñi nga xamante ni dañuy faral di topp waxtaan yi ci dëkk bi ak faneen farul ci dëkk bi ku ne xam na ay taxawaayam ci fànn bii ñu ko dénk waaye rawatina ci fànn bii nga xamante ni moom lañu koy bëgg waxtaanloo mu doon ab jàngalekat doon ab gëstukat doon ab bindkat waaye doon ab sëriñ daara nga xamante ni ndono li nga xamante ni moom la fi Mawlana Cheikhul Xadim radiallahu anhu bàyyi woon moom ci ndono loolu la nekk nekk di wéyal ndono li moom lañ jox nag tomm bu am solo muy tomm boo xamante ni lu mat a xam la waaye lu mat a waxtaane la muy sunna yu bari yoo xamante ni ay sunna sunna si yonent bi sallallahu alayhi la te ñu baree bari ci nit ñi réere ko loolu nag lu mat a waxtaane la ngir réere gi ko réere nit ñi réere suñ ko dégloo topp ko dana tax ñu gën a mën a fonkaat sunna gën koo joxaat wàccuwaay wi gën koo xamaat loolu nag duñ ci yaatal ndax mel na ni waxtaan wi ku ko faral di déglu rekk mel na ni soo ko dégloo dinga nga ci jële ay bind yu am am solo waxtaan wi nag def na ko ci ay tomm tomm bu njëkk bi mooy dana xamle lan mooy sunna ndax sunna baat bu ñuy dégg la dana baax ñu xam ko ci prime arab ak ci suñ ko dee gën yaatal lan mooy sunna waaye ñi nga xamante ni ay boroomi xam-xami pas-pas lañ muy ulamaul aqida ñoom nan lañuy fire sunna waaye tamit naka noonu ñi nga xamante ni dañuy faral di wax rawatina ci wàllu xadis ñu leen di tuddee indal muhaddisiin ñoom nan la ñuy firee sunna waaye naka noonu tamit boroom xam-xam yi nga xamante ni ay fuqaha lañ ñoom nan la ñuy firee sunna ndax kenn ku nekk ci ñoom da ngay am sa prime bopp moo xamante ni dafay wuute ak sa moroom loolu lépp fas nañu koo leeral ba mu fa ba mu leer suñu bopp waaye dana indi ay exemple yoo xamante nii ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa la bokk ba pare nit ñi gàddaay ko loolu nag defe naa ni ku dégg plan bi nga xamante ni tegal na ko muy xotta bi di nga xamante ni waajal na waxtaan wi kon yàlla na ko yàlla defal tawfiix ubbi ko ba lii muy wax yéene jiñ ci am daayira muqaddamatul xidma am ko ci muy kudib julit nga gën a mën a fonkaat sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ Seexuna bismillah بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين ginnaaw bu ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci ab yonentam sayidana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam di asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wii ñu nekk di ñaan sunu borom subhanahu wa taala ni ñu ko tàmbulee ñu àggalee ko noonu te li mu ci dige lépp ci aw yiw mu defal ñu ko di ndokkeel it waa daa daaira muxaddimatul xidma ci seen yitte ju kawe ak yittewoo gi ñu yittewoo jataay yu am solo yi nga xam ne danañu koy amal ci biir weeru koor te mu nekk jataay yu méngoo nag ak barab bi ndax barab bi barab bu jàng la ni ko boroom waxe wajcalhu da'ban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi kon ñu ngi leen ciy ndokkeel di leen ñaanal sunu boroom defal leen ci ngën ji pay te boole leen ko ak bépp jullit di ziyaara nag sama mbokk mi sëriñ may jang di ko ndokkeel moom it ci weeru tedd wi ni mu ubbee jataay bi leeral na li nga xam ne moom la bokk yi tànnoon di tomb bu am solo ñu sàkk woon ne nañ ci def gëstu ngir fàttalante ci ak sunu bokki jullit yi muy sunanun nabawiya تهاون بها كثير من الناس lenn ci sunna yonente bi aleyhi salaatu wasalaam te doon ay sunna yoo xam ne li ëpp ci nit ñi dañ koy doyodal dañ koy sàggane dañ koy tongu loolu nag tomb bu am solo la bu mat a waxtaane la ndax bu ñu dikkee ci ni nga xam ne noonu la lenn ci boroom xam-xam yi di taarife sunna da nga gis ne kon sàggane sunna mooy sàggane sa lislaam te téere bi nga xam ne ci la jullit ñi di sukkandiku te di ci dellu muy alxuraan gis nañ ni baatub sunna ñëw na ci lu war a toll ci fukk ak juróom-benn ci fukki barab ak juróom loolu nag am na lu muy tegtale ngir njëkkanteeg waxtu wi bala ñoo ñëw ci sunna yooyu nga xam ne moom la teg ci loxol ñiy diglu. ngir ñu xam ne lii kat ay sunna la yoo xam ne ñu bari sàggane nañ ko dañuy njëkk a ñëw ci lan mooy sunna baat bi ci boppam mooy lan ni ko sunu mbokk mi waxee léegi sëñ may jang sunna buñ ko waxee ci luga arabiya dañuy wax ne mooy attariq attariqa almasluuka mooy yoon woo xam ne rek dañ ciy sóobu dañu wax sunna muy tekki lolu ni nga xamne non noonu la yonente bi alayhi salatu wasallam waxe won ni man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamah kon sunna moy aw yoon wo xamne ne ci mën jaar dañu ko waxit nak ci lugha buñ ko itlaqé jublu ci العرف والعادة لني وخ عادة آه، داني وخ سنة جبلو كوتي بني سنة نكي استلاح لن موي أو ديجينم تي شريعة تي الإسلام كوكو تعريف بداي ووتي تي جلين ني كم ووتك domaine yi nga xamne ci lañ koy jëfëndikoo moom baat bi xamle baatub sunna lan lay tekki kooku dafa wuute ci kem wuuteek ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo baat bi bu ñu demee ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy jàngale pas-pas muy aqida ñoom bu ñuy taarif sunna dañuy wax ne sunna mooy hadyu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi usuli diin wa ma kaana alayhi min alilmi walamali walhadyi wa ma kaana sharaahu aw aqarrahu muqaabila albidaci walmuxdasaati fi diin ci gàttal mooy loo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa xotti woon aw yoon jaar ca saxal ko mu doon yoon woo xam ne nag dañ koy mën a jàkkaarleeg lu wuuteeg moom lu mel ne biddaa wala yi nga xam ne dañ koy sos ci diine ji ñoom ulamaul aqida yi daañu wax sunna it jublu ci diine boo ñëwee ci boroom xam-xami xaddis yi muy muhaddisuuna yi ñoom dañuy wax ne sunna kullu ma udira an innabiyi sal allahu alayhi wa sallam min qawlin aw ficlin aw taqririn aw siratin aw sifatin خلقية أو خلقية سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها محدثون يدن يوغني سنة mooy lépp loo xam ne dañ koo jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ay wax yoo xam ne moo wax wala jëf joo xam ne jëf wala loo xam da koo saxal lu mu fekkee nit wax ko mu noppi ca wala mu fekkee nit def ko mu noppi ca wala muy loo xam dafa aju ci aw doxinam benn muy melo woo xam ne jëmmam la wala melo woo xam ne melow jikkoom la moo xam loola doon loo xam ne jiitu na sunu borom di ko yónni wala ginnaaw bi ko sunu borom yónnee ñoom noonu la ñuy taarife sunna muhaddisuna yi boo ñëwee ci ulama usulul fiq yi ñoom dañoo wax ne sunna mooy al masdaru saani li tashriya mooy kay bu ñaarel bi ci sharia buñ ko waxe jublu ci hadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ta'rif bobu nak ta'rif bu am solo la ndax jullit bi warna xamne li tashri al islami al muttafaq alayha sukkandikukaay yi nga xam ne ci la lislaam di sukkandiku di àtte ak di doxal te ñu dëppoo ci ñeent la bu njëkk ba mooy alxuraan bu ñaareel ba mooy sunna alxuraan ak sunna mooy ñaar yi nga xam ne mooy ñaari sukkandikukaay yu mag yi su ko defee nag la ca topp li ñuy wax ijmaa mooy loo xam ne boroom xam-xam yi daje nañ ci dëppoo ca ak li ñuy tudde xiyaas ñeent yooyu mooy nattukaay yi nga xam ne ci lañuy natt ci lislaam ci àtte lépp lu mën a doon ci yi nga xam ne dëppoo nañ ci donte am na yoo xam ne nag am na ñu ko saxal am ñu ca dëppoo waaye yii moom mooy ñeent yi nga xam ne mooy masaadiru tasrix al islami al muttafaqu aleyha ku ne xam na ni lislaam dafa bari ay kuréel lislaam dafa bari ay kuréel am na ñu ñuy tudde ay quraaniyuun ñooñu seen masaadir seen masaadiru tashriic ñoom benn masdar lañ am nee nañu muy alquraan waaye ci seeni tafaasir nag dañuy tabanni ay usul yoo xam day toll ci ñett nga xamne mom lañuy i'timad ci seeni tafsir euh ba ci ñëk di hasbuna kitabullah ñaareel ba di al ictimaadu al kulli ala al lugati al arabiya ñetteel ba di al ilhaad wa tawil wa taxkiimu al aql fi bayaani muraadillah ñoom ci benn masdar boobu ci la ñuy ictimaad ñoom boo ci chia yi ñoom ak ahlu sunna soréewuñ ay masaadiru tashrian bu fekkee am nañ ak wuute benn la ndax ñoom alquran la ak sunna ak al aql ak al ijmaa kon ñeent yi mooy yi nga xam ne ci la lislaam di sukkandiku ngir de àtte mbir mu mën a doon ci loo xam ne da koy xool ba gis ne lii farata la wala lii sunna la wala manduub la wala lii lu xaraam la wala lu ñu sib la wala lu dagan la boo ci fuqahaa yi mooy ñi nga ñoo jàngale fiq ñoo bu ñuy taarif sunna dañuy wax ne maa yuqaabilu l waajiba aw il fard bu ñu farata wala wajib li ñu tuddee waajib mook farata leg leg ñu bokku ay tour leg leg ñu takale leen la jakarlo ak ñom moy sunna daldi wax ne fa hiya kullu ma faalahu ar rasul sallallahu alayhi wa sallam aw raghaba fi fi'lihi la ala sabil al ilzam bal ala sabil al istihbaabi wan nadb lépp lo xamne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam defoon na ko te xeemeem lu def ga wax ca def ga lu tax ñu di ko xeemeem te waxu ko ci anamuk nag mu nekk lu war waaye ci anamuk sopp rek loola ñoom moom la ñuy tuddee sunna ñoom fuqahaa yi léeg-léegi it ñu taarif ko ci ne as sunnatu ma dalla alayhi charu من غير افتراد ولا وجوب أو ما يصاب فاعله wala yuaqabu taariku sunna mooy loo xam ne dafay tegtale sharia waaye nekkul nag loo xam ne day doon farata wala mu doon lu war ba léeg-léeg sax ñu wax ne mooy loo xam ne boo ko defee des na la ci bindal tuyaaba waaye ñàkk gaa def mënees na la caa bañ a mbugal leg legit it ñoom fuqahaa yi ñu ta'rif sunna ci ma yuqabilu al bid'a lo xamne day jàkkaarloog bid'a lolu mo waral bo deme ci seeni téré fi ñi jangale at talaq leg leg ñuy wax ni hada talaq sunna wa hada talaq bid'a nga xamne dañuy jakarle sunna ak bid'a bu dé sunna nak ci nonu nga xamne noonu la ko usuli yu nay di taarife te mooy ka masdarin saanin li tashric su boobaa dañuy ictibaar sunna ci ne ko alquran leerale ne mooy sukkandikukaayu ñaareel bi loolu boo demee ci alquran da ngay dégg sunu borom subhaanahu wa taala di wax ni yaa ayuha alladina aamanu أتيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون دي وخدني وأتيعوا الله وأتيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فوفنا نك دانيو غيس ضروره التمسك بالسنه النبويه الشريف لغي كون جاب سنه day nekk lu mënta ñàkk ci bépp jullit waaye foofu it danañ fi gise ne kon tomb bii nga xam ne bokk yi tànn nañ ko muy asunanul na danañ gis ne tomb bi tomb bu am am solo la lan lañ jublu nag ci sunna yi nga xam ne dañ koy doya dal buñ ne asunanul na mooy sunna yi nga xam ne dafa siiw ci biir julit ñi ñu xam ne sunna la yoo xam ne yonente bi alayhi salatu salaam daana ko def benn muy lu aju ci wax wala muy lu aju ci jëf wala muy lu mu saxaloon te gis nañ ne li ëpp ci julit ñi bàyyi nañ ko loolu lañ jublu ci sunan nabawiya tahawana biha kathirun min annas loolu nag li ko sabab mooy xam nañ ne lislaam moom dafa sosu ci ak tumurank ni ko yonente bi alayhi salatu salaam jàngalee woon l'islam bi muy sosu ci ak tumuranke la sosu di dem ba yàgg mu dëgër am force jamono di dem ba yàgg mu tàmbuli di wàññeeku waat ni ko yonente bi alei salatu waxe woon inna al badaa gariban wa sa yahuudu kama bada fatuba lil guraba sahaba yi ne ko qiila saxaaba yi ne ko man hum ya rasul allah mu ne leen alladina yuslihuuna ida fasada annaas mooy ñi nga xam ne bu nit ñi di yàq ñoom ñuy jéem a defar ñu daañu dem ba mujj gi dañuy mel ne ñu tumuraanke ngirum néew ak néew doole sunna yi nga xam ne nag nit ñi dañ koy sàggane bokkuñ benn wàccuwaay ndax am na ci sunna yi ay sunan yoo xam ne mu akkada la yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf koo saxaloon wàccuwaay bi mu am bokkul ak yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxalu ko woon loolu mooy suñu xoolee rawaatib yi nga xam ne daañu ko def njëkk julli juróom ak ginnaaw julli juróom moo gën a feddaliku ci yeneen julli yu dul moom waaye nag rawaatib yooyu witar witar moo leen gën a feddaliku ndax rawaate bi yonent bi alayhi salaatu salaam daf koo saxaloon muy nawaafil yi mu daan def balaa julli jullik farata ak bu julli jullik farata ba noppi waaye witar moo leen gën a feddaliku ndax witar yonent bi alayhi salaatu salaam mësu koo bàyyi moo xam mu ne ci dëkk bi moo xam mu nekk ci ab tukki moo tax mboolem yu baax yooyu nga xam ne yépp dañuy sàkku ci nit ki mu di ko def dañuy wax ne la ca gën mooy la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam saxaloon te suñ ne sunna mahjura sunna boo xam ne dañ ko abandonné wala dañ ko tongu kooku dañuy wax ne shay'un bii lay doon mbir lay doon moo xam ne day nekk lu relatif ndax day wuute ci kem wuuteeg jamono yi ak barab yi ak kenn ku nekk sa mbirum bopp na muy doxee ak wàccuwaay bi nga xam ne am nga ko ci xam-xam ak ci diine ak bii ab bi nga xam ne fa ngay dund na fa sunna mel maanaam nañ ko fa jàppe ak nañ ko fa woyofale kon tongu ab na moom mën nañ koo ràññee ci barab dem ci beneen barab gis na ñooñu ñu ngi koy dundal bu baax a baax ba tax na kon sunan yi nga xam ne daañu ko indi muy ay am sila ci loolu mën ngaa nekk ci barab boo xam ne dundal nañ ko fa lool waaye mën ngaa gis beneen barab boo xam ne nag doyadal dal nañ ko fa lool kon nekkul mbir moo xam ne bu ñu nee sunna bii kat sunna bu ñu doyadal la wala bu ñu sàggane la dafa matale ci jullit ñépp déedéet day aju ci barab rek ak ci jamono ak ci mbirum nit ki ci boppam wàccuwaay bi mu am ci diine ak tolluwaayam ci xam-xam ak barab bi nga xam ne fa lay dunde suñ dee joxe misaal nag ci sunan yooyu dañuy tàmbalee ci xaddis bi nga xam ne abu hurayrata radiallahu anhu daf koo nettali wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida labisa xamiisan badaa bi yamini nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu masaan di sol yéere day njëkke ci ab ndeyjooram day njëkke cëri nday moom lay njëkkee bu masaan di sol yére loolu mën naa am nag nga gis ay benn benn yuy sàmmoonteeg moom ci seenu col ngir dundal sunna soosu waaye nag bari na ci nit ñi ñoo xam ne sàmmoonte wu ñëw moom ci seenu col waaye nga dégg ci ne ko ndekete jullit bi moom néew na lu muy def ci kaw suuf lu dul ne bu gëstoo diineem ba xam ko dana fekk yonente bi alayhi salaatu salaam jàngaloon na ko loolee naka la ko war a defe nga gis ne kon sol yére sunna la ci nit ki mu tàmbulee ci wetu nday jooram bu dee sol mbubb mu tàmbulee ci loxoom nday jooram bu dee sol tubéy mu tàmbulee ci tànkum nday jooram yemul rek ci yére waaye ba ci ay dàll sunna la ci nit ki buy sol ay dàll mu njëkk a sol dàllu nday jooram abu hurayra nettali na xadis boo xam ne nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam idan taala yonente bi ci boppam moo wax ne idan taala ahadukum fal yabda bil yumna kuy sol dàll ci yéen kuy sol dàll ci yéen na njëkkee tànkum nday jooram wa ida nazaa fal yabda bi shimaal buy summi dàllam na njëkk a summi tànku càmmoñam yemu ca waaye li yakunil yumna awwaluhuma tunal wa aaxiruhuma tunza ndeyjoor bi daal na doon tànk bi muy njëkk a sol waaye na doon tànk bi muy mujj summi kon ndeke sol yére am am na aw soliin ci sunna waaye sol dàll it am na aw soliin ci sunna kon ndekk jullit bi du na ko neex rek mu sole ay yéreem du na ko neex mu sole ay dàllam bu fekkente ne bëgguta doy dal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tegaat ca ne bokk na ci sunna yi nga xam ne ñu bari ñu ngi koy sàggane bu njëkk mag ñi fonkoon nañ ko lool daa nga gis fu nit amee ab daloo rek ñu daal di ko koy léemul ñaanal ko ca mu doog a sol yére boobu legi nak ñu bari toppatootuñ loolu te abi saïd al khudri radiyallahu anhu moo wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isa stajada dawban bismi summa yaquul allahuma laka alhamdu anta kasawtanii asaluka min xayrihi wa xayri ma sunia وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له أبو سعيد الخدري نينا يننتبي عليه الصلاة والسلام بمسانا أم أبييري دكوي ليمو day leemu yéere bi nee na bu dee mbubb wala muy kaala wala muy leneen lu mën a doon day jaar ca turwa daldi ñaan boroomam nag sant yàlla ci jox gi mu ko ko jox waaye ñaan ko nag lépp luy aw yiw woo xam ne làmboo na ko moom jumtukaay bii yàlla na ko ko ci yàlla defal waaye lépp luy aw ay woo xam ne làmboo na ko yàlla ko ci yàlla musal kon nit ki bu yore col gu yees na ko léemu na ñaan yàlla la gën nag mooy mu xam na ko yonente bi alei salatu salaam daan defee te mooy ñaan gi yonente bi daan ñaan mu ñaan ko am nañu jàmbaare nag ñoo xam ne daañu góorgóorlu waaye seenu ñàkk xam àgg na ci buñ koy léemu it mën nañoo léemoo neneen su boobaa def nga lu baax waaye fexe ba xam ne kon ñaan gi mooy allahuma laka alhamd anta kasawta nii asaluka min xayrihi wa xayri ma sunia la wa audu bika min min charrihi wa charri ma sunia la mooy ñaan gi nga xam ne moom la ñuy ñaan ci col gu yees bokk na ci sunna yi nga xam ne bari na ci barab yu ñu ko sàgganee bari na ci barab yu ñu ko doyadale muy ashur bu jaalisan booy naan nga àgg suuf ñu bari dañuy jàpp ne teggiin la waaw teggiin la waaye ndekete sunna su yonente bi la aleyhi salaatu wasalaam mag ñi daanañ ci yare di aaya taxaw di naan nga xam ne dañuy àgg ci di la wax ne taxaw di naan baaxut Anas ibnu Malik nee na naha kon dafa tere yonent bi daf koo tere naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yashraba arrajulu qaa'iman yonent bi alayhi salatu wasalaam day tere nit taxaw di naan kon sunna la nit ki buy naan mu àgg suuf te bokk na ci sunna yi nga xam ne sàggane nañ ko ci barab yu bare bari waaye ci jamono bi nit ki di naan it am na aw naaniin ndeke kon nit ki li ma waxoon ci njëlbeen rek léppi ak dundam su gëstoo diineem lu mu war a def dana fekk ne yonente bi alayhi salaatu salaam jàng na ko loolee lan mooy aw defiinam nit ki lu mu mar-mar yonent bi aleyhi salaatu jàngal na ko suy naan la nga xam ne mooy sunna ci mu naane noonu te bokk na ca yooyu atanafus xaarijal inaa i salaasan léeg-léeg nga gis koo xam ne la muy naan benn yoon la koy tëru di noyyi nag ci biir naan gi nam ko soobee loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam daf koy aaye te loolu mën na ko xañ wér-gi-yaram ndax ci biir hadis bi wane na ci ni moo gën a mën a maye wér-gi-yaram anas ibnu malik nag moo nettali hadis bi ci moom lañ ko jële buxaari moo ko nettali muslim indi mu wax ne كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ يونتي عليه الصلاة والسلام بدان نان dana dog naan gi ñetti yoon yoo xam ne dafay noyyi maanaam du naan continuer di noyyi ci biir jumtukaay bi muy naanee wala di noyyi ci biir jamono bi muy naan waaye dana dog ak naanam noyyi naanaat dog ak naanam noyyi ba muy ñetti yoon yonente bi alayhi salaatu salaam ne nag innahu arwa moo gën a mën a màndal njariñ li nga xam ne soxla nañ ko ci naan gi nee na loolu moo la ko gën a mën a jox waaye wa abra'u moo gën a mën a joxe it wér-gi-yaram kon bokk na ci sunna yooyu nit ki buy naan mu dundal sunna si te mooy mu bañ a noyyi ci pot bi nga xam ne ci lay naane walla butéel bi nga xam ne ci lay naane bokk na ci sunna yooyu at tashmiya inda al akl nit ki buy lekk mum yàkkamti rek ba fàttee wax bismillah kon bismillah mooy sunna ci ak lekk su nit ki lekk moom lay sunna ci moom mooy mu wax bismillah leneen lu ko soobi nag mën naa def waaye bismillah daal mooy sunna si bàyyi ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sayyidatna aïcha radiallahu anha wax na ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni ida akala ahadukum taaman falyaqul bismillah kenn ci yéen suy jëfandiku na wax bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi fi awwalihi wa axiri nee na même bu ko fàttee sax nag même bu fàttee wax bismillah waaye fàttaliku na ko ci biir jëfandiku bi na wax bismillahi fi awalihi wa axiri digaloon na ko gone gu ndaw muy abdullahi ibnu abbas bokk naa ak moom di lekk ne ko xul bismillah te booba ci irshad la toll nga xam ne moom nekkagul mukallaf waaye yonent bi aleyhi salaam di ko orienté ci yi nga xam ne mooy yi nga xam ne su màggee moom la ñu soxla ci moom même ci bi muy ndaw moom la ñu soxla ci moom mu ne ko xul bismillah yemul ci bismillah ja waaye wakkul bi yaminika nga lekke sam nday wakkul wakul mimma yalika nga yam ci sa kanam watamahal bokk yi abdulahi ibnu abbas ci ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale aadaabul ak aklu képp ku sàmmonteeg moom da nga mën a bokk ak ku ne te ay wu mën a nekk ci aw ñam sunu borom mën na la cee musal xul bismillah bala ngaa tàmbali nga tudd yàlla mu def barke ci li nga xam ne moom ngay jëfandikoo nga jëfandikoo it sa loxoom ndeyjoor bu fekkente ne amul benn ngànt waaye ndekete bokk na ci teggiini lekk it nga yem ci sa kanam nag nga yem ci sa kanam waaye bokk na ca teggiin ya mu ànd akuk teey ci jëfandiku bi ci boppam mu ànd akuk teey loolu ci sunna yi nga xam ne ñu bari sàggane nañ ko ci la bokk am na mbokk moo xam ne wax nañ ni dafa yaro sagom lool ci jëfandiku bis nag muy def loo xam ne dañ koy aaye am mbokk mu koy irshaad ne ko lii ngay def sëñ diw da koy aaye sëñ diw au lieu que mu tiire ci leçon moom xam ne lii kat wuti naa ki teggin waaye moom la mu ko tontu mooy sëñ diw ci boppam moomul lii ñu lekk nga xam ne kooku moom waajul ngir kon waajul ngir adopté wu ci teggin yi ñu koy jàngale sëñ diw moomu ko waaye nag lim lay wax moom am njàngaleem yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam kon nit faw muy nafar boppam ci naka lay jëfandikoo même bu dee moom dong rawatina nag bu fekkente dafa toog ak mbooloo yooyu ay sew-sew la yoo xam ne bari na boroom xam-xam yoo xam ne dañ koy seetlu ci nit te it day wane sa fonk sunna ak sa ñàkk fonk sunna ndax nit ki moom bu fekkente ne ak dundalam sunna moom ma ko aju ci yu siiw yi rek ci yu siiw yi waaye yi nga xam ne yonente bi aleyhi salaatu salaam moom daf ko daan digle ak daan ko def te jàngale ko tam doon yoo xam ne ñu baree bari mën nañ ko bañ a seetlu amu ci yitte loolu moom mënta tegtale ak fonk sunna bokku na ca lu jafé la nak al aklu bi salasati asabi' lolu mom ñiko man bari wut légui manam jëfëndiko ñetti baram yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la daan def jëfëndiko ñetti baram lolu nak dana tektalé néewu néewu la ngay jëfëndiko tayit su noppé ñetti baram yi nga xamné mom la doon jëfëndiko da koy mar ba mu set wicc mu do ko fomp wala mu do ko raxas جل نجى كعب بن مالك رضي الله عنه مجهل تبايم منكو ينتبه عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بسلاس أسابيع ويلعق يده قبل أن يمسحها نحن نتبارم لدان جفدكو تبو نبي دي مر بلا مكو loolu buñ ci doon joxe misaal mënees na cee joxe misaal ci jëmm ji nga xam ne moo tëdd ni ci suñu wedd Cheikhul Xadim radiyallahu anhu kenn ci soxna yi nga xam ne nekkoon na njaareem ñu di ko wax soxna Faati Awa la jóg nekkoon ci waawoon euh, mas nañ ko faa fekk di ko laaj ci sëriñ bi waaye nii la misaale sëriñ bi ci wàllu jëfandiku nee na bool bi nga xam ne moom lañ ko daan indil su génnee yow mënoo xamal sa bopp fan la doon jëfandikoo bool bi nga xam ne moom lañ ko daan indil su génnee mënoo xamal sa bopp yow fan la doon jëfandikoo te bool bi moom daañu ko indi loolu nag day tegtale rek dundal gum doon dundal sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbooleem wàll yépp nag ndax mbooleem yi nga xam ne jot naa jàll ci sunan yi benn bu ci nekk boo xoolee ci ñi nga xam ne ñoo jege woon sëriñ bi tey bind ci moom ak mag ñi nga xam ne dañoo nekkoon njaareem rawatina waa bar barsàq ñooñu soo leen di laaj buñ la misaalee na sëriñ bi doon dunde ci anam googu dalay jox ni yonente bi alayhi salaatu salaam doon dunde kon booy jëfandiku nga bañ a jëfandikoo sa loxo bépp ndeke loolu mooy sunna suñ mbokki ndaw kundaa yi nag boo moytuwul daañu jëfandikoo seen loxo ba mu àgg ca conco ya moom waaye bokk na ci sunna yi nga xam ne dañu ko doyadal boo lekkee ba noppi nga mar say baaraam ba mu set nga doog a fomp sa loxo wala nga doog ko raxas loolu nag bu ko nit ki tàmmul ci ak ndawam da koy topp ba ci ak magam léeg nga gis ku yaroo sagoom koo xam ne su jógee ca fa mu doon jëfandikoo ba àgg fa muy raxasoo dana fa bàyyi ci aw ñam loo xam ne buñ ko dajalee waatoon mu mën a regg xale loolu wute na ak sunna wute na ak sunna ndax sunna si mooy kaana ida akala taaman لعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها بلا فمبو أي بارام بلا مولي كرخص دانا كمار بمسر أمنا بنين سنة بو من مين أجو تنيام وو تنيو باري خمو نيكو سخ بو ميتور نا منا سبب سينو ساقنكو مي إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها من الأضاء ولياكلها ولا يدعها للشيطان وامر ان تسلط ان تسلط القصعه قال فانكم لا تدرون في اي تعامكم البركه انس بن مالك رضي الله عنه ننا يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فاخني سوي ليك با ياغ سب تيبو روت سب تيبو روت سي سوف ننا na nga ca dindi la ñuy tudde al azar maanaam nanga am loo dindi ci tib boobu jëfandikoo ko bul ko bàyyee seytaane ndax xamuleen ñam wi ngeen tiim fan la barkeb ñam wi nekk am na nag ñu defaru ñoo xam ne waxuma la ab tibb waaye suñu sukkee ci ndab fepp wurot bala ñoo jàll ci seenu xéewlu fepp woowee danañ ko yéwénal ma noppi doo ko jàll loolu sunna la boo xam ne bokk na ci sunna yi nga xam ne bari na barab yuñ ko sàgganee ak barab yoo xam ne ña ngi ko fay doyee dal waaye naka noonu ni mu waxe woon ci naan ne na nga noyyi ñetti yoon waaye boo naanee ba noppi it am na ñaan gu yonent bi alayhi salaatu salaam daan ñaan saabu naanee ba noppi loolu bokk ci sunna yi nga xam ne ñu baree bari ñu koy sàggane جلننتي أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه موخن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا لأن أبو بمسانا لك بنوبي ولا منان بنوبي day sant yàlla mi nga xam ne moo ko jox ñam wu teey wu barkeel wii dal di koy kañ nag ne ko amul kenn ku mën a am lu ko doy ku dul yow amul kenn it koo xam ne mën naa doyloo boppam walis boroomam subhaanahu wa loolu ñaan la goo xam ne yonente bi daawu ko bàyyi ginnaaw lekk wala ginnaaw naan mu bokk ci sunna yi nga xam ne ñu baree bari lekk ak naan moom jàppuñ ne ak jaamu yàlla war na cee am wala aw defin war na cee am wala lu ñuy fàggootu yaa ba war na cee am te la suñ Tuubaa daan wax mag ña ca njaareem jëf yi nga xam ne jëfi aadala la da ngeen yéene ak jaamu yàlla ndax sunu borom bi ne leen ci tuyaaba kon jëf yi nga xam ne ak jaamu yàlla ma matu ta wax bokk na ci sunna yooyu nga xam ne ñu ngi koy sàggane ci barab yu baree bari الدعاء عند نزول المطر سوي تاو امنا نيان غو وار دي نيان تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام دانا كو ديف سونو نday سيدتنا عائشه رضي الله عنها مو وخني ني يونتي بي عليه الصلاه والسلام كان اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا سو مسان دي تاو داي نيان يالا مو ديف كو وامي wu ام جارين te barkeel nit ñi ñu ci baree bari bàyyeetuñ xel ne kon jamono jooju barab la boo xam ne am na sunna suñ fa war a dundal te mooy saa buy taw rek nga ñaan yàlla taw bii sunu borom def ko waame wu ama am njariñ waame wu barkeel ndax ku ne xam na ne ndox ni muy jariñe noonu lay lore ndox ni muy jariñe noonu lay lore moo tax yonente bi alayhi salaatu salaam bu ma saan di taw muy ñaan boromam mu nekk taw boo xam ne dafay jariñ waaye du lor dawu ca yam nag waaye daf daan génn léeg-léeg ci taw bi wokk ay yéeréem ba ndoxum taw bi dem ci aw yaramam loolu sunna la boo xam ne jamono jii moom mu kàllaf mu ko doon def sa waa kër dañuy jàpp ne wéri di moo la feeñu ngir tumuranke gu mu tumuranke ba miinuñ ko taaridul jismi lil matar inda nuzulihi suy taw mu génn maanaam xuus ci biir taw bi ngir ndox mi wàcc ci kawam loolu ci sunna yi la bokk yonente bi da ko daan def anas ubnu malik radiallahu anhu nee na asaabana wa naxnu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama matar qaala fa xasara rasulullahi sawbahu xatta asaabahu min almatar fa qulna ya rasul allahi lima sanacta hada قال لأنه حديث عهد بربي anas nee na dañoo ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam di dox ba yàgg ab taw dal di sóob ci sunu kaw xam nga kuy dox moom ba yàgg taw bi sóob ci kawam loolu moom tawte la waaye moom gaaralul boppam ci taw bi waaye nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wogas ay yéeréem dafa wogas ay yéeréem ba taw bi dem ci yaramam ñu laaj ko ne ko lu tax nga def lii mu ne ndox mii kat moom dafa gëjul ci boroomam li annahu xadiisu ahdin bi rabbihi day loo xam ne gëjul ci boroomam loolu doon sunna soo xam ne nag saxaaba yi dañ ko ci doon roy mu bokk nag ci sunna yi nga xam ne ñu baree bare ñi ngi koy sàggane tey lu am a am solo waaye bokk na ci sunna yooyu nga xam ne ñu ngi koy doyee dal ci yenn barab yi masxu adari nawmi bil yad yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu masaana nelaw ba yeewu jeexiiti nelaw yi nga xam ne mu ngi ci kanamam da koy fompe loxoom da koy fompe loxoom loolu sunna la boo nelawee ba yeewu jël sa loxo bépp jeexiiti nelaw bu nekk ci sa kanam nga dindee ko sa loxo loolu ci sunna yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana ko def ci la bokk te bokk na ci sunna yi nga xam ne ñu ngi koy doyee dal ci barab yu baree bari استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه وفي روايه بيديه لول نك بوكي دا فا بوك سي ليكاي سبب موي نيت كي بو فكانتني گستول دينيم جانغول دينيم دا سي باري يو خامني اب اب خام خامم دا سي دول اگ دا سي باري يو خامني اب خام خامم دا سي دول اگ motax nit ki faw mu wo dinem ngir mëna xam naka la wara dundé surtout nak li ñuy tuddee ilmu siira muy jàng dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mëna xam naka la koy mëna royé mu bok ci yooyu nak sunna bu ama am solo te julit bu nek war ko wo muy li ñu tuddee tawba rak'atayn ba'da zan salatu tawba julik tuub ginnaaw borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne al insaanu gayru maasumin min al xata doomu adama yàlla musul ko ci njuumte rikk bu ñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee salaatu tawba muy julli goo xam ne saa boo defee bàkkaar soo noppee julli ko ñaan yàlla yàlla jéggal la loola lu mat xam la waaye lu mat a la ndax yaa ngi dundal sunna waaye nag yaa ngi dimbali sa bopp <coughs> abu bakar radiallahu anhu dafa wax ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul dégg naa yonente bi yàlla bi muy wax ne maa min rajulin yuznibu danban summa yaquumu fa yatatahhar ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أبو بكر نانا na بن جلت boo xam ne dana def bàkkaar daldi jub laa ba sell julli ñaari ràkkaa sàkku ci sunu borom ak njéggal lu dul ne sunu borom dana ko jéggal ginnaaw nag doomu aadama sunu borom musalu ko ci njuumte te bàkkaar yi def lu yomb kon jullit bu nekk war naa fexee xam salaatu tawba saa boo xamee ne def na njuumte muy lum xam wala lu mu yégul mu julli ñaan boroomam subhaanahu wa mu jéggal ko ndax njéggalug yàlla soxla nañ ko fii soxla nañ ko ëllëg bokk na ci sunna yooyu nga xam ne léegi li ñuy tuddee civilisation daanaka jële na ko fi muy assiwaak muy soccu soccu ku ne xam na ni maajunul asnaan yi ñu jëfandikoo muy pâte dentifrice yi tax na ba nit ñi yitte yitte wootuñ ko ndax dañoo jàpp ne rek waa mag ñi dañ daan soccu ngir setal seen gimiñ waaye nag bu ñu demee ba am loo xam ne moo ko gën a mën a setal du ko jarati fekk déedéet soccu day sunna yonente bi alayhi salaam dafa wax ne lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bis siwaaki inda kulli salaa su ma bañtoon a sonal sama xeet wi dama leen di digal waxtu julli wu nekk nañu socc kon socc sunna la bokk na ci sunna yi nga xam ne nag bu njëkk lañ ko gënoon a miin léegi gox yu baree bari sàggane nañ ko xëy na boo demee ci àll bi nit niti àll yi nga xam ne léegi jumtukaay yi nit ñi di jëfandikoo muy pâte dentifrice ya ci aju ak ci ñoom ñoom fonk nañ ko ba léegi léeg-léeg yi nga gis nituk sunna koo xam ne moom da koy fonk moy lima wax legi ko xamne mom day xamne ne sunna la foko fek mi ngay ko soccam di dundal sunna loolu lu mata baye xel la buñ ci doon joxe misal dama joxe misal ci ku mel serigne cheikh na Mbacké abdul wadud ku fonku sunna soosu la foko fek mi ngay ko soccam fonku ko lol lol nak lu ama am solo la waye bokku na ci li ñuy tudde istizan qabla dukhuli salasan istizaan maanaam diisoo bala ngaa dugg cib néeg ñetti yoon nga koy def wala tataadda ñetti yoon yi bu ko romb amul kenn ku am sañ-sañ dugg ci ab néeg te diisoowul sunu boroom subhaanahu wa taala dafay wax ci alquran ni yaa ayuha alladina aamanu su fekkente ne boole nga sa bopp ci ñooñu yow jàppal ne kon li aaya bi di wax ci sa kaw la dal yaa ayuha alladina amanu bu fekkee boole wa sa bopp ci ñooñu nag aaya bi mën naa bañ a dal ci sa kaw ndax foofu moom ñi gëm la yàlla di waxal laa tadxulu buyuutan bu leen dugg ci benn néeg gayra buyuutikum xatta tastaanisu wa tusallimu ala ahliha istizaan dafa bokkul ak assalaam mook nuyoo dañuy ñaari mbir yu wuute nit ki day yëglu mën naa nuyoo ñu fay ko mu yëglu nag ba xam jox nañ ko ndigalu dugg wala déet kon jullit bi bu ñëwee taxaw ci bunt bi ne asalaamu aleykum ñu delloo ko nuyoo ci wa aleykum salaam dañ koo fay rekk dañ koo fay waaye joxaguñ ko ndigal nag ci mu tàbbi ci biir su taxawee ab diir yëgluwaat asalaamu aleykum ñu ne ko wa aleykum salaam ba tey na taxaw su ko defee ñetti yoon nag te déggul bismillah wala waxiin wu koy wan rek jox nañ ko ndigalul mu dugg moom na delluwaat fa mu jóge woon te xam joxuñ ko ndigalul mu dugg ci biir ndax ki ngay nuyu bu dee ku kuy sàmmonteeg diineem di ko fonk sunna soo nuyoo dana la fay waaye fay gi am na yoon nag tegtaliwut ne jox na la ndigalul nga dugg ci biir néeg bi su ne la bismillah nag nga dugg su la joxul ndigal nga delluwaat fa nga jóge woon kon ana moog nag ñi nga xam ne ñoom asalaamaaleykum sax du leen ci fekk dañuy agsi rek ne bañaax tàbbi ci biir loolu wute na ak sunna te yaatu na lool nag loolu faw dañ ci yar xale yi suñu màggee tàmm ko seeni cër làggi ci noonu ko borom risaala di jàngale بنمي تي موطا بو امام مالك داي واخني اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن الثقه مالك مو اللي لي جيلي تي نيغا خامني نيوكو دويلا عن الثقه عنده عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع ديسو موم نيت يون لاي دون suñ لا جوخي نديغال nga dugg buñ la joxul ndigal nga wàññee ko ki nuyoo ñu fay ko ba ñett yoon yi mat te joxuñ ko ndigal mën naa wàññee ko même ki nuyoo wu sax ndax am na ñoo xam ne buñ dikkee dañuy fëgg rek wala ñu yëglu ci geneen anam goo xam ne mën naa bañ a tegtale ab nuyoo waaye soo yëgloo ba mu wóor la ne ki ngay yëglu yëg na la te joxu la ndigalul dugg ba man ñetti yoon jërul ñeenteel am na nag ñoo xam ne daañu yëglu daañ sax jéem a sàmmonte ak ñett yi waaye bu ñett yi matee te kenn waxu leen dara dañuy yërndu ba xam lu fi ne loolu moom mooy yéesati ginnaaw dundal nga sunna si moom nuyoo nga kenn fayu la nga xam ne xamoo ba xam nit a ngi fem nit nga nuyoowaat kenn fayu la ba muy ñetti yoon yow kay sa njàmbaar rek moo doonoon nga wàññeeku waaye day daal di àndale rideau bi nag ngir yëndu bëgg a xool ba xam kenn dafay nekkutam déet loolu kon jërutoon du yow saa boo diisoo ba ñett yoon yi mat moom boo amul ndigal rek demal waaye boo ko rombee rek léegi la nga jëkkoon def lépp yàqu na mu bokk nag ci sunna yu nga xam ne dañ koo sàggane ci barab yu baree bari li ñu tudde i'tikaaf i'tikaaf مشروع لا بالكتاب والسنة والإجماع بدمي تي القرآن سنو برم داي وخني وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود القرآن إندنكو سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جانجلنكو برين أي أحاديث يجرون واي بوكنا ترك حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها بموي وخني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد لأن ينتبع عليه الصلاة والسلام دان اعتكاف فكفا يموج في رمضان جناوام عليكم السلام أي سخنام دي اعتكاف ديكو تي ديكو دوندلي نام كو دان دوندلي بنين كو فك جي i'tikaaf ci fukki fan yu mujj yi lañ ko daan def ak tumurankeem nag àgg na ci barab yu baree bari déggatoo ko fa barab yam daan am sax boo ko buñ ko fa tuddee kenn ci la sa xel di dem koo xam ne daana ko dundal nga xam ne moo ci gënoon a siiw sunu barab yii ñu nekk ku mel ne Cheikh Mouhamadunil Mourtada radiallahu anhu yàlla na yàlla yokk ay leeram siiwoon na ci lool te la ko sababoon nag du caagi ne daa jublu woon mu siiw waaye taxawe gi mu daan taxawe salaatul iid te bu waxtu wa jotee muy génne ca jàkka ja nit ñi xam ne fukki fan yépp fi la nekkoon ci la ñu bare xamee lan mooy intikaaf intikaaf boobu am na ay benn benn ñu koy dundal ba léegi waaye nag lu ñu sàggane la ndax waroon naa bokk ci sunna yi nga xam ne moom moom it warees na koo dundal lool am na ay benn benn nag yu koy dundal ci barab yu baree bari ba ci Tuubaa gi xam nañ ci ñoo xam ne Euh, al ashrul awaaxir min ramadan dañ koy fatu ngir dundal sunna soosu loolu ci sunna yiñ sàggane la bokk ci yenn barab yi bokk na ci sunna yi nga xam ne moom it ñi ngi ko tàmbalee dooya dal muy ataxatum taxattum maanaa takk jaaro takk jaaro ku ne xam na ni ci lislaam may na góor mu takk jaarob xaalis waaye nag bu dee ci mazhab malik mi nga xam ne ci lañu tënku te sëriñ bi daañu ko dénk lu baree bari moom da ko wutal ab tàmbulikaay ako ab yamukaay mooy benn jaarob xaalis lay doon benn jaarob xaalis te it poids bi bu mu ëpp ñaari dërëmi sharia ci loxol ndeyjoor nga koy takk wala ci loxol càmmoñ kooku moom ixtilaaf la amul solo ndax lenn du ci lu araam ci ban baaraam nga koy takk xinsar wala binsar wala wusta kooku ba tey ixtilaaf la amul solo ndax benn du ci lu araam waaye li araam kay mooy takk lu ëpp benn jaaro ci mazhab yi loolu li sunna boo xam ne nag sunna bu ñu sàggane la ndax léegi dafa mel ne nit ñi dañoo toll ci jamono boo xam ne dañuy concurrence ci takk jaaro yu bari koo séen mu toog te nit ñi jàkkaarloog moom loxo yi baaraam bu ci nekk moom ko duyee ki jaaro ba mu fees dell loolu nag bu dee ci lislaam moom dafa xaram lay na mooy benn jaaro bu mu ëpp ñaari dërëmi sharia tey na doon jaarub xaalis bu dee jaarub or araam ne ci góor mu takk ko tere gi nag ci jaaro bu hadith la bo xamne abu hurayra radiyallahu anhu mo wax ne jële nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tere tak jaaro wurus mu tere gor mu tak jaaro wurus manam or kon gor suñu ko tak même anas radiyallahu anhu wax na ni kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashaara ila hadihi wa ashaara ila min yadihi l yusra moom da doon présisé fi yonent bi ëpp lu mu daan takk jaaro ci baaraamu xin saram waaye donte nag wax nañu dagan na ci ñu takk ko ci beneen baaraam bu bokkute boobu la ca am solo daal mooy la ca araam moom mooy takk lu ëpp benn jaaro loolu nag xew na yaatu na ba léeg sax nga gis ko ci koo xam ne wóor na la ne defu ko moom ci kaw ak ñàkk xam ndax dangay gis koo xam ne xam-xamam romb na foofu léegi nag mbaa ñooñu nga xam ne seen xam-xam romb na xam ne takk lu ëpp benn jaaro dafa xaraam mbaa ñoom ñi xamul duñ leen bëgg a def xujja kon ci ne kat gis naa diw mu di ko def te diw ab jàngkat la am na xam-xam déedéet loolu nekkul xujja loolu it ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bokk na ci sunna yi nga xam ne yu ñu sàggane la الصلاة في النعلين إذا تحققت تهارتهما جولي سول سي دال بو فكنت ني وور نال ني دال يلاب ني لولو موم سنة لا سنة لا يونت بي عليه الصلاة والسلام دا فا وخون ني خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم نيوم بو ني جولي سول سيني دال دوني سول سيني بوت سيني سانغ kon na ngeen fexe ba wutanteek ñoom kon wutanteek ñoom mooy bu ñu julli ñuy sol suñuy dàll kon nit ki julli même julli farata léeg nga gis ko ko laaj ci fi ñu jullee néew yi nga xam ne julli goo xam ne amuti rukoor amuti sujjóot taxawaay boobu am na ñooñ bu ñuy julli dañuy sol seeni dàll taxaw léeg nga gis koo xam ne loolu da koy jaaxal waaye même jullik farata bu fekkente ne say dàll laab na sopp dañ ko sax la wax nga julliwaale dàll yooyu ngir wuteeg yahud yi rawatina nag geneen julli waaye nag sart bi mooy na dàll yi laab ne la wóor ne dàll yi laab na bu laabul moom ala kulli haal soo ko julli waale julli ko du baax yonente bi aleyhi salaatu salaam daana ko julliwaale ay dàllam daana julliwaale ay dàllam boo demee ci saxiixul Buxaari yi anas ubnu malik radiallahu anhu nee na laaj nañ ko ko moom ne ko akaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli fii na alayhi mu ne naam anas lañ laaj ne ko ndax yonent bi daana jullee ay dàllam daana julli sol ay dàllam mu ne waaw kon julli sol ay dàll yàqul ak julli bal dafa bokk ci sunna yi nga xam ne dañ ko sàggane miinatuñ ko ba ñu baree bari mu posé leen problème te fekk loolu moom ci sunna yi nga xam ne dañ ko war a dundal ci la bokk waaye bokk na ci sunna yi nga xam ne it ñu baree koy doyo dal muy asalaatu alal janaasa jullee néew jullee néew boo xoolee bokk yi nit ñi defatuñ ko ngir dundal sunna daanaka koo séen mu dem ci armeel ya mbokkam ma fa nekk mbokkam lañu mbokkam mbokkam a faatu mu war a teewe ji jullee waaye sàggane gi nag mi ngi feeñe ci nit ñépp dañuy toog di xaar seen mbokk mii ngir ñu war koo jullee ñu teg beneen néew bu ñu war a jullee ñu néewee taxaw di ko jullee ñi ci des toog di seetaan jullit yi te jug ànd ci jullee gi moom di sunna nga gis ne ko yiwu bari ma nga leen di raw boo demee ci armeel yi di xaar ku ñuy waajal te noppeegut da gis ne saa bu tegee ab néew dañ naan sax ana ñi ànd ak moom léegi bañ nañ ko ba kiy yëgle ana ñi ànd ak diw lay wax te fekk na jullit ñoo waroon a maase ànd ci jullee googu ñaanal ko loolu mooy sunna kon nit ñaa ngi koy def ngir gunge seen mbokk ak taxawu ko waaye def ko ngir dundal sunna si nag ñu bari ñu koy sàggane léeg-léeg nag nga taseeg ay benn benn yoo xam ne ñoom fi ñu toog di xaar ki ñu àndal saa buñ ne ana ñi ànd ak diw ñoom ñu jug dem ànd ci jullee ga saa buñ ne ana ñi ànd ak diw ñoom ñu jug dem ànd ci jullee ga loolu nag lu am am solo la ndax jëf jo xamne mom ki ngoy defal du la ko fay mukk ndax du delu ci képp kep kuñ ngoy defal boko ko mané lebal lebal ko ko ndax sunu borom fay la ko ñi ci sa ginnaw abu hurayra radiyallahu anhu da wax ne yonente bi alayhi wasallam mo wax ne man shahida al janasata hatta yusalla alayha falahu qirat ku teewee julleeg néew ànd ci jullee ga sunu borom dana ko bindal ak pay ci lu ko qirat wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratani ñu ne ko wamal khirat lan moy khirat yow yonent bi alayhi salatu wasalaam mune mislul jabalayn al azamay al azimayn al qirat buñ ko don misal dañuy set montagne mi gëna reuy ci kaw suuf ñu ne noonu lay tollu motax am ni koy tollo lek jabal uhud ca jamono bobé nga xamné bokku na ci yi gënoon a ci kaw suuf bokku na ci sunna yi nga xamné ñing koy doyee dal bokku yi ñu bare bare léeg-léeg liko def jàppe ko ak jambar wala ñeme ab xif muy as-suhur li ñu tuddé xëdd xëdd bu fajar joté ci koor gi nga juk xëdd bari na ño xamné du juk fajar xëdd fekk juk xëdd sunna la yonente bi alei salatu salaam dafa wax ne barke ngi ci asuhuru akla baraka fala taduuhu walaw an yajraa ahadukum juruatan min ma donte da ngay jug guux benn guuxum ndox sax na nga ko def ndax fa inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala almutasaxirin ndekete yemul ci barke ngi ci waaye sun boroom ak i malaikaam nañuy jullee ci ki ci yonente bi alei salatu wasalaam noonu la ñuy jullee ci ki nga xam ne dafa jug njël ngir xëdd ngir dundal sunna soosu mën nga koo bañ a defe nag ni ko bokki ndaw ku ndaa yi di defe jàpp ne moom ci waxtu reer lañ toll wala ci waxtu añ waaye nga jug dundal sunna si donte benn guuxum ndox la donte benn doomu tàndarma la nga jëfandikoo ko loolu dundal nga sunna waaye nag faggul nga sa sa bopp jullik borom bi subhaanahu wa taala ak i malaayikaam ci sa kaw bokku na ci sunna yi nga xamne bokku yi batay ñing koy ngi dal ci barab yu bari mooy asawmu sittata ayaamin min shawwal wéru kor yi nga wor ci juróom benn fan loolu yonente bi alayhi salatu salaam daf ko digle won wax nak tuyaba ja ci nek na mu toll abu ayyub al ansari radiallahu anhu mo wax ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه شتا, ستا من شوال كان كصيام الدهر كور وير كور بمت nga tofal ci juróom benn fan ci weeru shawaal mel nga ni ko war jamono jépp juróom benn fan yi nag du sart ci ne danga koy toftale waaye weeru shawaal bi moom nanga ci woor juróom benn fan su boobaa mel nga ni ko woor jamono jépp loolu nag am na barab yoo xam ne ña ngi ko fay dundal waaye am na barab yi ñu ko sàgganee te ci sunna yi nga xam ne dañ koo war a dundal ci la bokk sunna yépp lañu war a dundal waaye dafa bokk ci sunna yi nga xam ne dañu leen sàggane te loolu warut ci ab jullit bokk na ci sunna yooyu saw mu ashura woor bisub ashura ci sunna yi ñu doyee dal la bokk bu ñu xoolee nag ci jamono yu mujj yii moom ci barab yii ñu nekk ñun gis nañ ne ñu ngi koy dundal bu baax a baax ndax li ma waxoon ci njëlbeen doyadal ab sunna euh, amru nisbi la mën nañ koo du mën nañ koo doyadal ci barab dundal ko ci beneen barab ñenn nag mën nañ koo doyadal ñenn di ko dundal mi ngi aju rek ci nit ki ak fa mu nekk ak ci jamono ba ak wàccuwaay wañ am ci diine ak nañu ko jàppee moom diine bu dee ci gox bii ñu nekk nag nga xam ne sunan yi moom ci gox bii ñu nekk la koy àttee jamono yu mujj yi saw mu ashura ku ne xam na ni léegi ñu ngi koy ñu ngi koy dundal bu baax a baax te yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ko daan woor taasuwaa mooy bis bi nga xam ne moom daf koo yéene woon ne la in baqiitu ila xaabili la asu man na at taasia far yàlla dogal fekkatu ko fi mu juróom-ñeenti fan la ne woon su demee ba nga xam ne fekk bu su ko fi déwén fekkee daal dana woo juróom-ñeenteelu fan bi yàlla dogal fekk ko fi muy taasuwaa di juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski weeru tamxarit laa bëgg a wax beneen a ngi nii boo xam ne bu am am solo la ci sunna yi nga xam ne dañ koo bëgg a sàggane muy ixtiyaaru amir fi safar tànn njiit ci ab tukki kon daxanaa ku nekkul ci ab tukki moom taxul ñuy wax moom it aw nit fu ñu dajaloo rek yonente bi bëgg nañu tànn kenn muy seen jiit nga gis ne kon lislaam bëggul nit ñi tisaaroo kenn ku nekk teg sa nji ci genn wet wala nit ñi boy kenn du yilif kenn dafa bëgg di tënk nit ñi ci biir kilifteef jamono bu nekk nga xam ne nit li feeg mi ngi boole boppam ci kuréelu lislaam gëm-gëmam mooy na xam ne li mi ngi dund day nekk ci ron kilifteef kilifteef googu nag mën nay tuxu mën nay tuxu ku ne mën na koo yilif ca kem na koo ko doon la koo ko doon ci moom waaye jullit ñi nga xam ne dañoo dajaloo ci àll bi ne ci tukki bi yonente bi alayhi salaam nee na nañu daje ci seen biir diisoo tànn kenn muy seen kilifa kookee mooy jël di mooy décider ci suñu waree dem ak suñu waree toog ak fan lañu war a wàcc ida xaraja salaasun fii safar falyamuru ahadukum ñett rek bu ñu àndee nekk ci tukki nañu tànn kenn ne ko yaay sunu kilifa suñu waré dem mune nañ dem bu waré tok mune nañ tok lu wara def moy joxe lo moy moy mooy wax lolé ñu def ko bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñu bari dañ koy sagane muy tashmitul atis ndokkeel aji tisli ndokkeel aji tisli yonente bi alayhi salaatu salaam daa wax ne julit akam ci mboroomum julitam juróom yi ci la bokku xaqul muslimi alal muslim ahadith yi rot te dikke nonu dafa bari moo tax doo doone rek àqi jullit ci mbokkum jullitam juróom la kon bu beneen hadis ñëwee indi loolu naka nga koy dugale ci biir loolu mais juróomi mbir a ngi yoo xam ne bokk na ci àqi jullit ci moroomum jullitam raddu salaam bu la nuyoo nga fay ko ab nuyoo ayaadatul marid yuug aji feebar maanaam seeti ku tawat ittibaaul janaasa gunge am néew ijabatu da'wa nongu ñaan tashmitul atis ndokkel aji tisli nit ki bu tisle mom dañ ko diggal mu sant yalla waye yow mi ko deg nak dañoo bëgg nga ndokkeel ko ci yarhamukallah li doon wax legi ci shaykhul radiyallahu anhu wax nañ ni naroon naa tàqale ab dongaakub sëriñam ngir ñàkk a jàngal gu mu ko ñàkk a jàngal tasmitul aatish nga xam ne kon moom jëlale naa jëmmi boppam ja ci ni mu doon dundale sunna waaye ñi ànd ak moom sax mi ngi jàngat sew-sew yooyu ci ku dem ba nit ànd ak yow war ngaa fexe ba lépp loo xam ne sunna si yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam te aju doomu aadama bi lu ca sa xam-xam àgg nga di ko jàngal loola li ma doon wax léegi nag ñàkk yaatal xam-xam ak ñàkk jàng siira mën naa tax nit ki yu baree bari ci yooyu xelam du ci àgg mbokk mu baax dafa toog ba yàgg mu tisli ñépp ne cell am sëñ diw mu toog ci wetam mu ne ko sëñ diw yow laay diglu mu ne ko ci loo may diglu mu ne ko damaa tisli de sant te dégguma nga wax dara ndax ñun ci sunna la ñuy dox waaye bokk na ci sunna yooyu ñu doy dal addu'a lil marid ñaanal ko feebar yonente bi alayhi salaatu wasalaam saad ibn abi waqaas radiallahu anhu nee na man maa tawat yonente bi seet si ma bi mu dikkee daal di ñaan allahuma ishfi saadan allahuma ishfi saadan allahuma ishfi saadan nee na ca la sunu borom saafara tawatam joojee ibnu abbas radiallahu anhuma wax na ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas naa seeti benn arab yi bi mu ñëwee ci moom di ko seet si bi mu agsee la ma ko wax mooy la bas tahuurun insha allah loolu bokku na ci ñaan yi nga xamne ne bi daana ko ñaanal ko febar nga xamne ne yubashiruhu bil khair da koy bégal ci aw yiw waye bokku na ci sunna yi ñu sagane yit addua inda sama'i siyahi diik so degge séq buy sap nga gaw tabal ak ñaan ci biir ndax wax nañ ni bu dé sap gis na malaika yonente bi alayhi salatu salaam neewon woon na isaa samiatum siyaaha diikati fasalu llaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan waaye bokk na ci yi nga xam ne dañ ko sàggane it bu nit ki yégee aw metti ci yaramam mu fab loxoom teg ko ca fa fay metti boole ko nag ñaan ñaan gi nga xam ne ci yonente bi alayhi salatu salaam la bàyyi ko te mooy yonente bi dafa wax ne su sa yaram soo yégee aw metti it fabal sa loxo teg ko ca fay metti nga wax bismillah ñetti yoon wax juróom-ñaari yoon audu bi izzati llahi wa qudratihi min charri ma ajidu wa uxaadiru loolu ci sunna yi nga xam ñu ngi koy doyadal ci barab yu bari ci la bokk waaye bokk na ci sunna yi ñuy sàggane it booy dugg ci wanag am na ñaan gooy ñaan soo génnee am na ñaan gooy ñaan nga xam ne kon bàyyiwul dara sooy dugg ci wanag allahuma inni audu bika min alxubsi wal xabaais sooy génn xufraanak lu ci nekk rod na ci hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ko ba suy ngelaw sax suy ngelaw suy ngelaw am na ñaan goo xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam daan ñaan muy sunna soo xam ne sunna suñu war a fonk la allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma arsalta bi wa audu bika min charriha wa charri ma fiha wa charri ma arsalta bi waaye bokk na ci yi ñu war a fonkit ci sunna yi nga xam ne dañ koo doye dal ñaanal sa mbokkum jullit fu mu nekkul sa mbokkum jullit boo ko ñaanalee bi zahril xay bi sunu borom da koy nongu ba noppi bindal la yow tuyaaba ju tol maanaam lam ko defal mu defal la ko yonente bi alayhi salatu nee na ma min abdin muslimin yad'u li axihi bi dahri alxaybi illa qaala almaliku walaka bi misl sun borom da koy wax ne ko lii nga ko ñaanal may naa la ko waaye yow it may naa la ko yow mi ko ñaanal naka noonu su musiba dalee ci sa kaw sunna la nga ñaan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahuma ajirni fi musibati wa axluf li xayran minha yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na amul benn jaam bu musiba dal ci kaw mu waxe ko noonu illaa aajarahu llahu fi musibati wa axlafa lahu xayran minha sunu boroom dana ko xettali ca musiba ma dana ko defali lu gën loola waaye bokk na ci li ñuy tudde ifsaau salaam nuyoo siiwal ab nuyoo assalaam dafa bokk ci asmaullahi yi yonente bi loolu la waxoon inna salaama ismun min asmaillahi taala wadaahu llahu fi l ard fa afshu salaama baynakum léegi nag nuyoo day mel ne nit ñi dañoo dem ba àgg ci jamono boo xam ne dañ koo at ci nit ki daal da ngeen koy seq wala ngeen ñàkk ko seq boo seetloo ñuy dox ci mbedd mi bu ñu tasee ku ñu xamul duñ ko nuyu bu ñu rombee ñu xamul mën nañ leen bañ a nuyu waaye bu ñu xam nuyu ko bu ñu ñu xam nuyu ko te fekk sa mbokkum jullit moom dafa bokk ci sunna yi nga xam ne dañ ko war a dundal dem na ba. sayyidina jibril alayhi salaatu wasalaam bu daan ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ci moom ab saxaabi da koy nuyu sayyidatuna aïcha nee na damaa toog yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ma haada jibril yaqra'u alayka salaam jibril de moo lay nuyu nee na ma daal di koy fay ne ko wa alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon nuyu sa mbokkum jullit dafay kafaara ay bàkkaar waaye nag ajuwul ci nga xam ko ak nga ñàkk ko xam bokk na ci sunna yi nga xamne ne dañu koy sagane surtout nak ci jamono bi ñu tollu muy rafet ndortu ci nit yi rafet ndortu yonent bi dafa wax ne iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aksabu al xadis ndortu lu ñaaw dafa bok ci li gëna mëna yàq digënté julit ak mbokum julitam waye nak surtout yi nga xamne da ko lim ben par ben wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا التحسس والتجسس علماء yi dañ koy teqale nga xam ne ñaari baat la yu ñëw ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne taxassus mooy al istimaau lil xadis maanaam di gëstu waxi nit ki nit ki di wax nga ngay gëstu ay waxam te fekk xamoo ba xam bëgg na nga jot ci wala jotoo ci loolu nag jamono dem na ba yàqu jamono ji àgg na ci léegi nit ñi kenn ku nekk ñi ngi yitte wo xam say wax ba sa mbokum julit mi ngay waxal sax te la ngeen di wax di lu yam seen digënté même bu dee lu rafet la da nga gis ne ma ngay wufum fu mu denc wax joju ngir jotalé ko ñeneen léeg-léeg nga gis ko xam say wax yonam neeku ci mais ma ngay wut num def ba say wax mom ngir jot ko ngir gëstu ba xamna la ci dégg aw ñaawteef ci wala dit ata jessus nak moy gëstu awrey nit gëstu nit leen li ci nekk yonente bi aleyhi salaatu salaam dana da ngeen na ngeen ko moytu ndax ñaar yi li feeg mi ngi am li feeg nit kaa ngi koy def mbokkum jullitam ñoom ñaar mënuñoo bokk doon ay mbokk wa kunu ibadallahi ixwaanan la leen def ay ixwaan mooy ñu effacé seen diggante loolu bañ iñaanante baña a wanante ginnaaw bañ a fañante waaye bokk na ca yooyu li ñu tudde atalaaqu sunni yi nga xam ne mën nañ koo tëjee sunu sunu sunu sunu sunu sunu jataay bi atalaaqu sunni nag ku ne xam na ni lu jafe la ci jamono bi ñu toll ndax gis nañ ne tàggoo yi nga xam ne mi ngi am ci sëy li gën a bari fa muy juddoo ci waxtu mer lay soqi ko moo xam ku góor ki moo mer moo xam ku jigéen ki moo mer su fekkee ku góor kee mer fase mën naa bañ a sàmmonteeg surut yi nga xam ne mooy tax fase ma nekk fasem sunna su fekkee gu jigéen kee mer takk taxawal ku góor gi ci ñaan ko baatam ba mu fase ko it mën naa bañ a sàmmonteeg fase mi nga xam ne mooy fasem sunna te fasem sunna yonente bi alayhi salaatu salaam daf koo jàngale ci hadis bu leer nàññ yi Maalik mi nga xam ne ci moom la ñu tënku te sëriñ bi tënkuñu ci wax ne fasem sunna moom dafa am ay charte lu jafe la nag lu jafe la ndax nit ki bu fekkente ne mi ngi jéem a sàmmonteeg sart yooyu su dee mer moo ko naroon a dugal ci loolu yàlla mën naa delloo siwaat am xelam ba mu génn ci bu dee jigéen kee meroon it yàlla mën naa delloo siwaat am xelam ba fase du am kon loolu malgré ñi ngi dundal sunna waaye ndekete solution la bu lislaam teg boo xam ne mën naa tax ba fase mën naa néew lool su fekkoonte ni nit ñi ñi ngi sàmmonteeg moom ndax ba ci jiitu mooy moom ki nga xam ne mooy ku jigéen ki su ko góor gi di fase na ko fase menn fase menn fase te it menn fase moomu na fekk jigéen ja doon koo xam ne du gone ba mënta gis mbërëg doonul mag la weesoo gis mbërëg jamono ba mu koy fase it na nekk ci ak laab laab googee it na doon laab goo xam ne séqu ci ak moom dara te it ginnaaw bu ko bu mu doon fase moo xam ne am na fase mu ko jiitu ci biir mbërëg ma bu fekkee am na fase mu ko woon mu ko jiitu woon ci biir dootul tuddati faseem sunna te ginnaaw bi mu ko fasee ci laab gii it bu mu tofalaat meneen fase ci laab googu te it bu mu doon fase moo xam ne ndaw si da koo jox lum summikoo ci sëy bi mu mu doon fase moo xam ne dafa am iwaad ndaw si da koo laaj alal da ko da ko delloo alal ngir génn ci sëy bu sart yooyu dajee loolu mooy fasem sunna loolu nag ngir sart yi daje bu fekkente ne fase mii ci mer képp la naroon a sosoo moom day muy ko góor ki muy ko jigéen ki bu fekkee nag day fase moo xam ne nag mooy li fi sës su boobaa mu tudd fasem sunna moom it bokk na ci yi nga xam ne léegi sàggane nañ ko ndax fase yu ëpp ci ngay dégg moom ci mer rek lay soqi ko jàppante ku jigéen ki ñaan baatam forcé ku góor ki wala ku góor ki mer gis boppam may ko baatam loolu it bokk na ci sunna yi nga xam ne ñu ngi koy sàggane kon sunna yi nga xam ne ñu ngi koy sàggane bari na lool waaye loolu mënees na ko cee jàpp su ko defee nag bu ñu doon joxe misaal ci ni ma ko waxoon ci njëlbeen gi ci ki nga xam ne moo dundal mbooleem sunna yooyu nga xam ne bàyyiwul dara ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxal ko lool mënees naa joxe misaal ci jëmm ji nga xam ne moom la ñu tuddoon léegi mu Cheikhul Xadim radiallahu anhu looloo sabab ñi nga xam ne ñoo ko jege woon mu yar leen nga xam ne bu fekkonte ne ku ñuy xam la mën nañu wax ne ñoo ñaa ko gën a xam ku dul ñoom li ëpp ci seeni tagg ak seeni wax jëme ko ci moom day delluwaat ci dundal gum doon dundal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ngi ci ñoom koo xam ne tagg na ko tagg woo xam ne tagg mënu ko féete kaw te mooy أمات ما سنه الخب اللعين كما أحيا الذي زنه خطب الأودائي sëñ Ibrahima Diop al-Mashari bokk na ci li mu tàgge Cheikhul Khadim la Iblis yoon wa Iblis xotti woon amaata maa sannahu alxibbul la'iinu maanaam yoon wa Iblis xotti woon ngir jaare la ci nit ñi moom bi mu dikkee dafa rey yoon woowee kama ahya alladi sannahu xutbul awiddaa yi yoon wi nga xam ne mooy sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi dikkee dafa dundal sunna soosu kon mënees naa joxe ci moom misaal loolu it mënees na koo joxe ci ay amsila ci sunan nabawiya tahawana biha kathir min annas wa nusalli wa nusallimu ala sayidi alwujud muhammadin afdali xalqillahi bila taraddud wala istibah wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëñ Cheikhouna ci waxtaan wu am solo wi mel na ni waxtaan wi ku ko dégg rekk te di la topp xam na ni li nga ci waajaroon bari na lool ndax niñ ko waxe woon leeral nga lan mooy sunna ñi nga xamante ni ñoom lañuy wax wax muhaddisiin yi ak fuqaha yi kenn ku ci nekk na la dégg sunna waaye li nga ci tënk rekk mooy sunna mooy li nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa daan na ko wax wala mu ko daan jëf walla mu daan digle ñu jëf ko wala bu ko nit masaana jëf mu noppi ca naka noonu tamit wax nga ni sunna mooy ñaareelu delluwaay bi nga xamante nii mooy delluwaayu lislaam wax nga tamit nii alquran indi na kalimatu sunna lu ëpp fanweeri yoon ak juróom walla lu ko ëpp indi nga tamit ay exemple yoo xamante nii jëm ci sunna yoo xamante nii jullit ñu baree bari dañ koo réere te mu nekk ay sunna yoo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo fonkoon loolu bi ñuy topp waxtaan wi jàpp nañ ci lu mat fanweeri sunna ak benn yoo xamante ni tudd nga ko te benn bu ci nekk nag indi na ci xadis buy dëggal wax jooju kon loolu li muy tegtale mooy sunna yi nga xamante ni moom la doon waxtaane war na ci ñun rawatina ñun jullit ñi waaye rawatina ñun njabootu cheikhul xadim radiallahu anhu ñu fonk ko ndax sëriñ bu mag bi mooy ki nga xamante ni moom moo doon jëmmal sunna ci kaw suuf ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax dundam gépp daf koo méngale woon ak sunna si bi sallallahu alayhi wasallam kon sëriñ bi jërëjëf ñuy ñaan rek lépp loo xamante ni wax nga ko fii ci ay sunna yu ñu woon ku teew ci jataay bi wala kuy dégg kàddu gi ak di topp jataay bi bis ni ki tey sunna yi nga xamante ni réere woon nañ ko mu bokk ci yi nga xamante ni dañ koy jëfandikoo bis ni tey ginnaaw loolu nag ñoo ngi lay sant ci turu muqaddamatul xidma yépp su ko defee di sant tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo yaatal jataay bi waaye kenn jiituwu ci MK muy télé muxaddamatul xidma bi nga xamante ni moom moo nekk ci biir jumaa ji waaye ak mbooleem télé yi nga xamante ni ñoom ñooy tele locale yi ak mbooleem yi nga xamante ni ay tele national lañ waaye naka noonu ñi ngi sant mbooleem rajo yi waaye ak mbooleem site internet yi duñu dugg ci di leen lim waaye bu ñu leen tuddee ñoom ñëpp kenn ku ci nekk xam nga taxawaay bi nga ciy def waaye naka noonu tamit ñi nga xamante ni dañuy yaatal liggéey bi ci réseaux yi su ko defee ñoo ngi sant ñëpp suba nag waxtaan wi dafa mel ni dañoo indi waxtaan woo xamante ni dañ koo méngale ak xew-xewu jamono ndax ku ne xam na ni dimanche moom mooy bis bi nga xamante ni ci lañu war a tànn njiitu réew mi yàlla nañ ci yàlla àggale ak jàmm kon suba ñu war a waxtaanee responsabilité bi nga xamante ni la kiy tànn réew mi war a مسؤولية المواطن في اختيار الحاكم كي خمنتني مو ورا تان نجيتو ريو بان ريسبونسابيلتي مو ورا نيك تي موم باغا خمنتني موم مو خامني لي موي ديف موي فوت ريسبونسابيلتي لا تي موم لول نك نيون تي فاسيني اندك سونو سيرين سيرين شيخنا مبك عبد الودود ngir kenn ku ci nek warna xamni li ngay def responsabilité la te bu ëllëgé yalla subhanahu wa ta'ala dana la laacc responsabilité bobu loolu nak ku ci bëgg ñoo ngi ay ñaan suba nga ñëw ànd ak ñun jataay bi wala nga topp ko ci MKTV yi wala ci site internet yi nga xamante ni ñoom ñooy jàllale waxtaan wi kon ñoo ngi jéggulu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu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 sa wenn lor woone tëf nit benn rekk a fi daa boolay lor ak tawat ak aajoo di faj Touba Matlabul Fawzayni le numéro 1 des ventes de véhicules et de pièces détachées symbole marque américaine li c'est indil mbokk si ay pièces mu moteur wala boîte Ford Edge 4 cylindres ak 6 cylindres moteur Ford Escape 1.6 2.6 2.5 fusion ak Ford Focus ay moteur Hyundai Santa Fe 2.0 turbo Hyundai Elantra Sonata moteur Chevrolet Cruze Equinox Malibu Akit it ay organes carrosserie am nañu ay porte ay mal ay capote ay phare ay feu Les poudres le jumtukaay jumtukaay dem ci auto ngeen itiwoo ko marque américaine yu mag yi da ngaa agsiwul fi ci Touba Matlabul Fawzeyni ñoo ngi Thiès route de Polytechnique téléphone ba di 77 317 2204 04 76 449 16 05 ngeen ànd si ak gérant bi di Saliou Touba Matlabul vente de véhicules et de pièces détachées surtout café Al mortar mbokk mo indil poudre café yi nature café 100 ou wala aromatisé de am jar am xorom amit gold de am poudre vanille ak cannelle toll si quantité bu 500 grammes Il est, ñu fi lim disponible na si ou 1 litre ñoo Dakar ñoo ngi Touba woote leen 135 22 22 café Al mortar mo leen di souhaiter un bon ramadan les marques américaines vous fi accès dal sa adio